mbokk yi ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala moom mi yelloo ak cant ñu ngi koy dimbali ko moom yàlla di ko bàkk di ko jéggal sunuy bàkkaar di yeesal sunu tuub di seede ne amul kenn wala lenn lu nu war a jaamu ci dëgg jaamu ga di ñu jural njëriñ fii ci aduna ak fële ci àllaaxira ñàkk jaamu ga di ñu jural lor fii ci aduna ak fële ci àllaaxira ku dul yàlla di seede na moo yónni ndawam lu jubla muhammad ibn abdillah salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi yal na jàmm yàlla ak xewalam ak barkeem di dotteeku ci sang boobee mbokki juliti mbokki doomi ndey yi ñu ngi dénk sunu bopp di leen dénk ñu takkoo ragal yàlla fu nu mën a nekk te yëg ne loolee mooy ndénkaan ak yàlla ci ñu jiitu ñi ak ñu mujj ñi sunu borom yàlla ngi wax ci alquraanil mu ne na naa woromi tere yi fi jiitu woon comme ni ma leen dénkee yéen xeetu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndénkaane la modi di an ittaqullah ñu ragal yàlla di def ay ndigalam waye di bàyyi li nga xamantene mom moy ay terem naka nonu tamit di dénkaat sunu bop di len dénk ñu takko njàng li nu alquran ak sunna ci deg deg gacha mag ñu bax ñi amoon te moy yàlla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena ci deg deg gi ci sahaba yi amon te nu yëg ne kat sunu jàmm tay fi ci aduna warka noonu tamit sunu jàmm fële ci àllaaxira sunu borom yàlla subhanahu wa taala nu ko fenn fudul ci ngoy ci alquraan ak sunna ci déggin gi ci sahaba yi amon mbokki juliti mbokki domi ndey fala yujadu insanun fi hada al kawn amul benn doomu aadama boo xamante ne di nga ko gis ci aduna bi la yuridu an yakuna saida bëggul nekk koo xamante ne ku texe lay doon bëggul nekk koo xam maanaa bëggul nekk koo xamante ne day am ak texe ba loolu mu tax bokk na ci li ci li yàlla dëxëñee doomu aadama ak nim ko sàkkee moo di da ngay fekk nit ñépp yabaxasuuna an saada di wër la nga xamante ne moom mooy tedd nga di wër la nga xamante ne mooy ak texe di wër la nga xamante ne moo leen di jural jàmm di wër la nga xamante ne moom moo leen di jural ak yokkute waaye li ciy jafe-jafe moo di walakin alkathir minna ñu bëri ci ñun dañuy juum ci yoon wa ñuy soobu ngir wóri li nga xamante ne moom mooy tedd nga waaye tamit nit ñi dañoo wuute ci dégg-dégg tedd nga ñenn ñi ñu ngi foo gëm ne tedd nga ndekete yoo ci alal la nekk soo ko amee yow texe nga ba faw ñenn ñi foog ne ak tedd nga ci e, daraja la nekk su ma góorgóorloo ba am palto nangam am daraja nangam rek daanaka man samay mbir baax na jeex na amna ko xamantene yaakar na ne tedd ngam mu ngi nek ci mu am liggey bu baax rek jeex amna ko xamantene tedd ngam mu ngi ko wekk ci tukki amna ko xamantene tedd ngam mu ngi ko tek ci leneen ak leneen li misal la laa ala alxasr des koy indi ngir misale ko yeneen yi ci desi waye tamit des di indi misal bi inde su ko ngir tutil mbir mi wala ngir wane ne lii jaaduwut waaye dañ koo indi ngir gam-gam lekaak la ko gën a rëy ngir gam gam-gam la nga xamante ne moom moo gën lan moo gën a jara sonn mbokk yi dañuy fekk doomu aadama yi eh, ñuy wër ngir am la nga xamante ne moom mooy benn diplôme bu ama am solo ci diplôme lu mel ne eh, lu aju ci wàllu médecine nga gis nit ki daanaka def ci lu tolloog vingt ans tey kii su fekkee ne sunu borom yàlla wërsëgal na ko mu war a dund juróom-benn fukki at da ngay yëg ne ceeru dundam lépp def na ko ca la nga xamante ne moom mooy mbir moom ndaxte nit lépp lu mu xam ne lii am na solo ci man te dina ma jural njariñ loole day tax mu xar tànk tubayam góorlu ci kem kàttanam ba yegg ca la nga xamante ne moom mooy jubluwaay woowee waaye ana ñaata doomu aadama ñoo dem ba yegg ca moom fam ca yegg waaye taxul ñu am ca la nga xamante ne moom la ci yaakaaroon kon mbokk yi ndekete ak tedd nga dëgg-dëgg mooy tënku ci diine yàlla ji ak texe akuku raw dëgg-dëgg mooy jàpp ci alquran ak sunna ak texe akuku raw dëgg-dëgg mooy nekk wootekat jëm ci borom bi subhaanahu wa taala ak ci foo ak noo mën a mel ak waccu way wo meuna am ci société bi lo meuna am rek nga boole ci nekk koo xamantene da ngay jottalil yàlla akub yonantam li nga xamantene mom moy diine ci sunu borom yalla de fa mu teunk ak tedd nga modi ci njub mo tax sunu borom yalla ngi wax ci alquran فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى كيف كو خمانتene top nga hudaya sama njub njubam li moy li muhammadin sallallahu alayhi wa sallam indi mu ne ku topp loolu kat fala yadillu ibn abbas mune fala yadillu mom moy du sànku fi ci aduna wala yashqa du taxedi di lan keroog yawmul qiyam kon dekete ak tedd nga deug deug fi lañ koy amé lenen lo meuna wut ngir mu ñëw euh dimbali la ci tedd nga goge lolou lu ama am solo la waaye lu nit meuna am ca la nga xamante ne mooy paltoy aduna te amul diin mbokk yi na yëg ne amul dara sunu borom yàlla gën ko tënk ci beneen aaya man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mumin mu ne képp koo xamante ne jëf nga lu baax ngay góor wala di jigéen fekk ba nga koy jëf wa huwa mumin yaa ngi nekk woy gëm yaa ngi nekk wéetalkatu borom bi subhanahu wa taala yàlla ngiiñ la commencé lan kàddu ya falanuhyiyannahu hayatan tayyiba man yàlla giiñ naa ne kooku dinaa ko dundal fii ci àdduna dund gu teey falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu yacmaluun suñu ñëwee keroog bi su penci ma fay leen la nga xamante ne moom moo gën a rafet ca la ñu doon jëf mbokk yi xool leen ana nyaata doomu aadama ñoofi rombon ci kaw suuf ana ñaata boromi daraja ñoofi rombon ana ñaata buur ñoofi rombon ana ñaata boromi alal ñoofi rombon ana ñaata ñaata ñaata ci ay doomu aadama ñoo rombon ci ay xeet yu sori lool sunu borom yàlla subhanahu wa taala tuddul seen mbir wala su fekkee ne dafay tudd seen mbir da koy tudd ci buntu ŋàññi leen ndax bañ gi ñu bañaloon borom bi subhanahu wa taala waaye am na ci ay nit ñoo xamante ni am ci lenn ci jinne yi ñoo xamante ni nekkuñu ay yonent nekkuñu la nga xamante ne moom mooy ñi yàlla yónni ci nit ñi waaye bi ñu amee taxawaayu am yëg-yëgu woote jëme ci yàlla am yëg-yëgu dund la nga xamante ne mooy seen diine sunu borom yàlla daal di kontaan ci seen taxawaay boobee ñu jëfoon ci bis boobee ci waxtu woowee yàlla jël xew-xew woowu daa di koy nettali xeetu yonent bi sallallahu xew-xew ga mujj nekk xew-xew boo xamante ne day des ci kaw suuf ñu koy fàttaliku ila an yarisa allahu al wa man alayha bokk na ci ñooñee yàlla nettali ñu ci alquran وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن yàlla mu ne fàttaliku len bis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam taxaw na di jàng alquran am ay jinne yu ñëw wër ko di déglu alquran gi mu doon lan gi mu doon jàngale falamma xadaruuhu qaalu ansitu bi ñu ñëwee ñu ne déglu leen jinne yi ñooy wax de falamma qudiya wallaw ila qawmihim mundirin bi ñu demee ba yonent sallallahu alayhi wa sallam noppi lam doon wax ñu daal di wëlbatiku dem ci seen mbokk ya ba ñu yeggee lan la ñu wax qaaluu yaa qawmana inna samicna kitaaban unzila min baadi muusa jinne ya dem ca seen mbokk ya tey la ñuy door a dégg alqur'an jottali leen alqur'an ga ne e yéen sunuy mbokk kat inna samicna ñun de dégg nañu téere bu yàlla wàccee ginnaaw muusa nekk téere boo xamante ne مصدقا لما بين يديه دفا نيو دي دغال لاغا خامتاني تي لا نيكون يهدي الى الحق والى طريق مستقيم دي جوبل جيمي تي دغ واي دي جوبل جيمي تي يون وجوب يا قومنا اجيبوا داعي الله ايين سونو اي ايين سونو مبوكي ويولن ووتكاتو بيالا بي وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم واي واي جملنكو سوكو دافاي يالا دادي لين دي جيغل سيني بكار ويجركم من عذاب أليم سوكو دافاي مو موسل لين تي ليغا خامتيني موم موي مبوغل غو ميتي موتي ومن لا يجيب داعي الله كيب كو يول ووتي كتب يالا بوبي كيف كويو الوات بيننتبي صلى الله عليه وسلم فليس بمعجز في الأرض من رجي الله سبحانه وتعالى وليس له من دونه أولياء أمول كنا دمبل إلى دخس ديجن تيك سبرم يالا تنيوني كت نيوم نيوي نيلاني نيوم نيوي نيريرني مكو يتيب دك أب غباخ دون وارات دي وخ لباخ yàlla jël jëfam joojee kenn xamul loolu kañ la kenn xamul ca ban waxtu la kenn xamul situation jëmm joojee waaye acte boobee mu def jëf joojee mu def bi nga taxawee ci mbedd mi wax ak kenn di wax ak moom ci yàlla yàlla kontaan ci jëf jooju daa di koy indi ci alquraanil karim yàlla kontaan ci jëf jooju daa di koy nettali xeet wu ci xeet di xeetu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam góor bu baax ba moom mooy luqmaan mi nga xamante ne yàlla nettale nañu ko ci alquran alkarim wa id qaala luqmaanu libnihi wa huwa yaidu yàlla mu ne fàttaliku leen bi luqman di wax ak as ndoomam fekk mu ngi koy waar bunayya la tushrik billah e yow samas ndoom bul bokkaale gi yàlla subhanahu wa taala inna shirka la xamal ne lii di bokkaale kat tooñ gu màgg la mbokk yi li gën a rëy ci li yàlla digle moom mooy wéetal ko moom yàlla bàkk ko kañ ko jox ko la nga xamante ne mooy turam yu màgg yi ak melokaanam yu kawe yi xam ne mooy def di dindi xam ne mooy joxe di xañe yëg ne moom mooy al mutasarrifu fi akwaan ki nga xamante ne mooy soppax ndiku ci li nga xamante ne mooy mbiru jaamam ginaaw gi ci la demee demee ba ne ko di ko gën a waxtaanal ci يالا yàlla ak xam-xamu يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل إيو سمس دوم يغلني جف أك لوم توتي توتي نتولني بيب بند أك فمو من نك فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله moo xam ci montagne la nekk wala ca montagne ba lañ ko jëfee woon moo xam ci asamaan sa la moo xam ci suuf si yati biha allah yàlla xalseet na ko indi teewal ko ci la nga xamante ne moom mooy bis penc mbokk yi xool leen kàddu yu mag yooyee waaw mu ne ko inna allaha latifun xabir يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ee yow sama ndoom taxawalal julli di dégle lu baax di tere lu bon wasbir ala ma asaabak muñal ci lépp loo xamante ne dal na la inna dalika min azmi al umur lii de bokk na ci lii wane nit ki dëgg-dëgg jàmbaar la te ku am ku dogu la ci wàllu diine wala tusair xaddaka linnaas mooy bul rëy rëylu waaw bul jël sablan سب لوس جيمكو تي ولا تمشي في الارض مرحا سوي دوخ تي سوف سي دوخال اندك دال بور ري ريلو ني تولو لي ام من ماي ديو ني لا مل ديدت يو جولي بي بول دافي نونو ندخت ان الله لا يحب كل مختال فخور موم يالا بوغول كوي بوكو ريو موم يالا بوغول كو خامتاني داي ري ريلو واقصد في مشيك واغضض من صوتك waay waay diggu doomul ci sag doxiin waaye tamit yemaleel say kaddu te nga yëg ne inna ankara al aswaati la sawtu lxamir mbokki julliti mbokki doomi ndey yi noonu bi firawna taxawee bëgg bundu xataal muusa ak ñi gëm ànd ak moom dogu ne day rey ki nga xamante ne mooy muusa وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه بفرعون تخوي نبايل ممري موسى مخال بخم برما بمن درم وكم ديت إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فرعون من دمي بن موسى يق ديني بقي بن ديني diinay firawna fu mu baaxee ba firawna di ragal ne Moussa dafa ñëw ngir lan ngir yàq diineem déedéet xanaa diine jooju kay mooy diinay nax nit ñi mooy diinay euh, lan nu mu tuddati tënk nit ñi ci say bëgg-bëgg ngir jël seen alal di leen dundee loolee la firawna tuddee diine mu ne nag kii di Moussa dafa ñëw ngir libérer jaamu yàlla yi kii di Moussa dafa ñëw ngir yàq la nga xamante ne mooy samay intérêt kii di Moussa dafa ñëw ngir dox ci loo xamante ne nit ñi dootuñu ma lan dootuñu ma dëggal moo tax mu ne inni axaafu an yu an yubaddila diina damay bañ mu yàq seen diine aw an yudhira fi l ardi l fasad mu ne day bañ Moussa indi ak yàq-yàq ci kaw suuf si te moom mooy yàqkat bi nga xamante ne moom mooy bu mag bi kon moom la mu nekk ci réer la mu nekk ci bokkaale moom mi doon taxaw di wax ne ana rabbukumul aala maay seen borom yàlla من فرعون مي أمون فت دان تخو دي وخنا ما علمت لكم من إله غيري خمل ملن جنن يلا قدل من لوليلا جل تديكو ديني وإلي موسى دي واتي تموي توحيد مو تديكو لغا خمانتين مموي لن مموي أك يقوتي تديكو لغا خمانتين مموي أك يقوتي كون بوكي لدوي وار لول بمو تخواي بي موسى وور نكو فرعون جلنا متواي غير لن غير فاغا دل وي گم يالي غير فاغا دل ويتل كتب رب سبحانه وتعالى كلا موسى لقو تي جل جلاله وعز كماله وقال موسى اني عذت بربي وربكم موسى ني من دماغي لقو تي سما بروم دي سين بروم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب maa ngi làqu ci yàlla ci bépp rëy rëylukat boo xamante ne gëmul bisu penc te yitte moom mooy yàq diine yàlla ji tuddee li mu yore diine waaye tuddee diine yàlla ji li nga xamante ne moom mooy lan moom mooy ak mboddi tey ngay dégg nga taxaw di woote jëme ci tawxid di woote jëme ci li yàlla moom nañu wéetal yàlla nañuy xettaliku ci yàlla nañuy ñaan yàlla nanu wakiirlu ci yàlla nanu xam ne yàlla mooy def di dindi nanu xam ne yàlla mooy joxe di xañe nit taxaw di fiire loolu yëg ne yow mii kat dafa mel ne da nga ñëw ngir lan ngir xañ ko la nga xamante ne mooy àq ba ñu dégg ñu ne ku taxawati di wax yi ni mel shirk la dañoo war a dal sa kaw dañ la war a denc dañ la war a tëj fa subhanaka rabbi hada buhtaanun azim suñu demee ba yegg ci réew moo xamante ne woote jëme ci tawxid day métti ay doomu aadama فإذا ذكر الله وحده اثمأذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبسرون سفكين دقت الدنيا الله دونغو من يجاب تي الله دونغو من يوكير لك يا دونغو من يجابو يالا الله من يخت لك تي الله من يوات تي الله نين نلان يالا الله من خلو غاية كما سديو وايسو تدي لنن لدول يا يالا نك آه تي لنين كما سدي وانه la nga xamante ne moom mooy ak mbégte mbokk yi tawxiid dees koy waxtaane te wallahi ay kàddu ngi di jib ci sunu réew yi nekkul lu jaadu mbokk yi ci réew moo xamante ne nee na ñooy téeméer boo jël juróom-ñeen fukk yaag juróom ay lan lanu ay jullit lanu kàddu googu insha allah den ci ñëw mu gën a lan mu gën a leer Moussa taxaw bi mu waxee lii yàlla mu ne wa qaala rajulun min ali firawn benn waay bu bokk ci lan ci niti firawna yi yëg la nga xamante ne mooy diine ci xolam lan la wax mu ne yàlla mu ne waajooju yaktumu imaanahu mu ngi daan nëbb ngëmam kon gëmoon na ne leen ataqtuluuna rajulan andax da ngeen di taxaw ne da ngeen di fexeel bëgg rey waajoo xamante ne dara nekkul bakkaaram lu ne an yaquula rabbi allah dafa ne yàllaay sama borom bëgg faagaagal wajo xamante ne dafa ne nañu jox yàlla li mu بغ فاغا غال واجو خامتاني دافا بغ ووتو جيمي سي ويتال يالا تا يوننتي بي دوندام ليب دون ووتو جيمي سي ويتال يالا كون بوكي لولو لو دوي وار لا نيغي نان يالا يالنا نو يالا موسل اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أيها الأحبة في الله إن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك مكين يسنت الله سبحانه وتعالى جل ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم دينان يلا يلا ننو خير تبقى di ñaan yàlla yàlla nanu yàlla defal li nga xamante ne mooy tawfiqu daarayn mbokki yi mbokki doomi nday yi kon wéetal yàlla lu ñuy wax la di ko yëkkati waaye bokkaale tamit lu ñuy maanaam lu ñuy teg baaraam la di ko diinga di wane ne lii kat baaxul lii de yàlla bëgg ko woon lii de yonent bi sallallahu alayhi sallam bëgg ko woon lii de saxaaba yi bëgguñu ko woon lii de mag ñu baax ñi bëgguñu ko woon lii de képp koo xamante ne ab jullit nga njullit nga di dëggu ci yow kàddu gii de lanoo ko kàddu yii nga xamante ne moom la ñuy dégg ci lenn ci sunu média yi mbokk yi kàddu yu mel noonu jaaduwut kàddu yu mel noonu jaaduwut dañoo war a wéetal borom bi subhaanahu wa taala doy na war lool nga déglu dégg nit ne maa ngi ñaan diw te diw moomu faatu dénk naa la diw te diw moo faatu yàlla nanu diw defal tawfiq yàlla nanu diw ah yoreel sunuy mbir yàlla nanu diw defal la nga xamante ne mooy sunu tey ak sunu ëllëg mbokk yi ay kaddu la yoo xamante ne palaasu diw yàlla lañ fa war a tudd soo fa duggaloon allah rek tawxid gu mat sëkk lay doon mbokk yi ana yonent yàlla yunus ba ñu dégg ci sunu média ابن تخاوني ديو دو مرومو يوننتي رومبو يوننتي داخ لولو موم مو باخ مبوكي لي دي تعظيم شعائر الله موي ماغال يي يالا ماغال لولو دافا جادو نانيو ماغال القران نانيو ماغال يوننتي عليه الصلاه والسلام نانيو ماغال دين بوكو نتي ليغا خامتيني موي لو ووتك تعظيم شعائر الله موي جيلن تكوتي تي فيغا خامتيني يالا تيغوكو di taxaw ne diw moo gën Moussa moo gën Isa ndax lii diine la ndax lan ndax rek aatifa ndax ëppal moo tax yéen sallallahu alayhi wasallam daan wax ne laa tatruni kama atratat an-nasara Isa ibnu Maryam bu leen ëppal ci ni ngeen may tàggee ba yegg fi nga xamante ne fa la nasaraan yi yeggoon ak Isa fan la ñu yegg ak Isa mooy xëy-xëy di tagg di wax ci Isa xam-xam lalatu ko xam-xam di wàññiku réer di yokku ñu bàyyi nit ñi di wax kenn contrôlé kenn du contrôlé kàddu yi lu neex waay wax almuhim waxal rek luy luy réyal diw waxal rek luy campagne doomu aadama yi ba doomu aadama taxaw ne isa doomu yàlla la subhanaka rabbi hada buxtaanun azim keroog bi nit taxawee am fit ne isa doomu yàlla la waxaguñu ne isa yàlla la de waaye bi ñu ne isa doomu yàlla la yàlla mu ne bis boobu la aduna naroon tukki ndaxte asamaan si wéetalkatu yàlla la سوسي ويتل كتو يالا مونتاني اي ويتل كتو يالا لا موتا سونو بروم يالا موني تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض يالا موي نتالي موني بيس رومبونا سي بيسي اسمان سي توتي مو خوتي مونتاني توتي ني نيك بند سوسي توتي مو ينغو ني نيو يالا واو لو خيوان تي بيس بوبو لول دوينا واردي يالا موني ان دعوا للرحمن ولدا بنتخبني يالا ني امنا دوم يعلمون وما ينبغي للرحمن جادو ولتكو تولى يلا جادو ولتكو مجين يلا نكوي اسكن لالا خمنتين من مويدوم نحتكت و... و... آه، كان نكوني كتنين جامو بيالا موتا ين صلى الله عليه وسلم انو بغنون فورتي موم موي نكو جامو بيالا موتا من لا تطروني كما أتردت النصارى عيسى بن مريم فانا عبد الله ورسوله نيلن جامو بيالا نيلن يننت بيالا تنين ينفوف biñu xeyé nit ñëw ne way way kay leen ñu ku ci yonent bi yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko innahu la yustaghasu bi xéttali ku ci man yonent bi waaye ci yàlla lees di xettaliku nit taxaw na ne ko maa sha allahu wa shita ya rasul allah su soobee yàlla soob la mu ne ko na mujj qul maa sha allahu waxda neen su soobee yàlla dong ajaaltani lillahi nidda ndax danga ma bëgg def moromu yàlla lii moo doon taxawaayu nit ñu moy lu nit bëgg ëppal ñu delloowaat la lu nit bëgg romb ñu delloowaat la kon mbokki Sénégal nañu delluwaat ci wéetal yàlla subhanahu wa taala kon ndekete yàlla moo yor yàlla mooy joxe yàlla moom mooy ki nga xamante ne bi yadihi malakutu kulli shay sunu borom yàlla mu ñuy nettali qissa bu jara bàyyi xel di qissa yonent yàlla yunus wa inna yunus la min al mursalin yàlla mu ne fàttaliku leen yunus ab yonent la moo ne xam nañ ni yunus ab yonent la waaye lan moo tax maqaam bii mu fàttaliwaat ñu loolu ne la minal mursalin mooy ngir ñu bàyyiwaale xel ci garaat boobu ngir ñu bàyyiwaale xel jëmm ji mu waaj ne teli dub saalex dub wali du du leneen ak leneen waaye ab lan la yonent bi yàlla la mbokk yi te xam ngeen ne yonent yi ñooy li gën ci lu yàlla sàkk yonent yi mooy ñi gënal ñi gënal yàlla ci ay jaamam la ko waral mooy diine bi ñu yoroo sunu borom yàlla wa mu ne wa inna yunusa la min al mursalin id abaqa ila al fulki bi mu yégee ca gaal ga ànd ak ñamu ñamu nekkal id abaqa ila al fulki al mashxuun fa saahama fa kaana min al bi ñu demee gaal gi fees ñu ne dañuy bantale na ku nekk indi sa tur am foo ko bind waaye ku sa tur génn dañ lay sànni ci géej gi ñetti yoon turam di génn gaa yi yëkkati ko sànni ko ci géej gi mbokk yi lan la ñu ab yonent la ñu sànni waaye bañ ko sànnee lan moo xew faltaqamahu alxuutu wa huwa mulim ab jën wann ko ab balañ wann ko ana yunus mu ngi ci biiru jën nekk ci ñetti lan lëndëm lëndëm ci lëndëmu guddi ga lëndëmu géej ga landamu biiru jën ba kon mu ngi ci jafe-jafe këri na ba sonn mënta génn waay waay yunus lu tax mënul xettali boppam ndaxte ak xettali nekkul ci loxo waaw yunus mii ku koy xaar mu xettali la ci say mbiri àdduna ak àllaaxira ndax di nga ci génn wallahi doo ci génn te moo ne ab yonente la waaye bi mu kër-këree ba sonn mu wóor ne ko ne fii mënalu fi boppam dara ndaxte jaam manalul boppam dara bay manal moromam dara ci la yuuxoo yaakaaram tey ak ëllëg di jalla jalaaluhu wa azza kamaalu فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك كلا يوخو كبير لندم لولو في الظلمات كبير لندم لندم يوي لندم جيجي لندم جديغا لندم جيجي لندم بيرو جنب مور نكو دا يالا دونغ مو خم حالام مور نكو دا يالا دونغ مو يك جفا جفام مور نكو دا امول كين كوكو مانا تكيل تكيل جفا جفا بي كودول يالا مور نكو دا امول كين كوكو في مانا خيتلي كودول يالا تي لا و بروم بي نيكو لا اله الا انت امول كين كو يالو جامو كودول يو يالا amul kenn ku yello yaakar ku dul yow yow yàlla amul kenn ku yello wéeru ku dul yow yàlla man de ma ngi xettali ku ci yow dila ñaan nga génne ma ci sama jafe-jafe wa yàlla mi nga xamantene moy borom kun fayakun mo xam mbiru jami yara mbiru jami di ci sopax di ku nim ko sobé yàlla jox ndigal jeen bi ne ko demal ci tefes bi nga gokki sama jam bobu nga xamantene xamna ma te nanguna delu ci man yàlla waaw fa naada fi dhulumaati an laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min az-zalimin kon mbokk yi buur boobu moo jara yaakaar buur boobu moo jara wéeru buur boobu moo jardi di ñaan buur boobu moo jar di xettaliku li ñu amal njukkal ci képp ko xamante ne sunu kilifa la mu jiitu mooy ñu koy ñaanal ñu bëgg ko fonk ko waaye mu defal ko njéggal defal ko rahma ba ëllëg mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duggi aljanna lii de la ñu ameel saxaaba yi waxantuma laal nag keneen ku dul saxaaba mbokk yi nañu moytu ëppal ëppal baaxul lu yàq ci diine rek ak ëppal moo ko lan moo ko yàq loolu moo yóbbee woon yahud ñu ne isa doomu yàlla loolu moo yóbbee woon na yahud yi ñu ne usayr doomu yàlla loolu moo yóbbee woon nasaraani ñu ne isa doomu yàlla ndax loolu jaadu na loolu jaadu kon ngall ngall nañu waat sunu diine ngall ngall nañuy saytuwaat sunu diine buñ ko bàyyee rek ku bëgg wax rek wax bu ñu bàyyi média yi ku sentir wax rek wax lu waay wax kenn du taxaw nee la du nii ndaxte soo taxee wan nit ki fi mu war a jaar ñu ne da ngay diingat ñu ne yow na nangam ak nangam ndax loolu war na tax ñu noppi wéetal yàlla subhaanahu wa taala déedéet mbokk yi dañoo war a woote jëme ci li nga xamante ne moom mooy wéetal borom bi subhaanahu wa motax borom bi mu ne وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يالا مو نتشابي كومبي تي لوخ يالا لا كين خموكو كودول موم يالا سبحانه وتعالى موتاخ بي امين اهل السماء دي جبريل نيو توغك امين اهل الارض دي محمد صلى الله عليه واله ما وسلم اه بيم كولاجي نيكو متى الساعه كين لا ديسبنتي منكم المسؤول عنها بأعلم من السائل كي كوي لاج دي كي غنو آه، كو خم كي مو كوي لام كي مو كوي لاج موي نيوم نيار نيب خم كون نيكيتي كومبا كين خمو يالا واخ يونس صلى الله عليه وسلم نيكو قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله يا محمد صلى الله عليه وسلم جامي بغنن لا فونكو نلا تي نيغي لاي غيسه لو بري بري سك مباخ xamal leen ne kumpa yàllaa ko xam ci la taxawee ne leen yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ak gaa yi ne leen law kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayr لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء كي من يوننتي kumpa سما خمون كومبا كون لو ميتي دوما دال موك وما مسني السوء يغلن من دي نيكوما لودول ووتكات خوبتكات موتا سونو بروم يالا واخ سي بنن آية من والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير كومن ديو ديكو تي ساي سوخلا تفك لولا يالا دونغ موكو منال جامبي يالا من نيو نيو ديغو نيو ساك وان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم تسو تخوي وولن من ديغول ساك ووتي غا ديغ نيت تخاو dem na ci bërëb sang ma na ci bërëb diw dal di koy tiss sama soxla diw jàppale na ma dimbali na ma nga gis ko am fi taxaw ne luma diw joxut soxla wu mako subhanaka rabbi hadha buhtanun azim mbok yi nañu yëg ne jullit wéetal yàlla dafa bok ci programme wetal yàlla dafa bok ci programme motax yàlla mu ne suñ len wowe duñ ko deg in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u même su ko déggoon tamit mastajabu lakum mënu la wuyu ci sa soxla ndaxte jaam ku lottu la jaam ku aajawoo la jaam ku soxlal yàlla la yaa ayuha nnaasu antum alfuqaraau ila allah ee nit ñi yéen soxla yéen a ñàkk yéen a yàlla wallahu huwa alganiyu alhamid moom yàlla mooy ki woomal ki alhamid mooy ki sant boppam njëkk kenn wala lenn di ko sant ñu ngi ñaan yàlla bi asmail husna wa sifaati alula yàlla nanu yàlla wërsëgal tawxid yàlla nanu yàlla aaral tawxid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 وعلى آله وصحبه أجمعين